mooy Taysirul Wusul diwaan bu ci nekk eh, da ci indi ay kasida yu bari def ci ay kaafiya yoo xam ne ay xaraf yi la koy jëlee ruux li jaay yooyu bu ci nekk mu def ci kasida ñu njëkkee yaakaar na mooy Taysirul Wusul ñu njëkkee ci xarful alif xarful alif boobu mu def ci diwaan eh,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 lu dul mu nekk ku ñu jirimloo lool mu tey mooy ku ñu jirim mooy ko xam ne daal wéet na nekk na kenn ci ndum ñàkk na te ñàkk na képp ku koy dimbali ñàkk na woy jur muy mu teye maam bi daal bañ na lu mu nekk noonu wéet na maanaam mënul dëkku keneen soxlawul keneen ku dul yonent bi la ci jubli mu teye wéet na moom xol ba bañ na lu dul loola li koy firil mooy xalifa xaraamin muy aji takkook cofeel bañ na leneen lu dul takkook cofeel bi bii gisoo leneen lu dul loola rek moom jirim la ci waaw wéet na ca nekk na ci mu tay mu ci arab mooy ku wéet ku kenn mooy tay mu moo tuddee jër jirim al yatim yatim li muy firi mooy ku wéet bañ na leneen lu dul xalifa xaraamin takkook cofeel xaraam mooy cofeel xalif mooy takkook takkook cofeel bi nabi ci yonente bi mu xëyyama muy ku ci aji ku ci muy nekk aji gëlëm mu xëyyama ku gëlëm ci bëgg yonente bi ni muy saddee bayti nii di wax ci mbëggil ci yonente bi ak di ko tàggee noonu la ci mel ku mel ne moom ci bëgg yonente bi amul moom wax na ko waaw bu ko raw ci bëgg yonente bi boo ci génnee Cheikh Tidiane yi amatul moom nga gëlëm ak biji bi jéggi dayo waaw abitu bi layli timni sahrana munshidan li zikri lazi kataba bat an wa maxtama bàyyi abitu dina fanaan bi layli timmi ci guddi gu mat bagudi guddi ba guddi ba tak tak mooy timmi hmm. hmm. Mune guddi gu mat ma fanaan ci sëxrëna may aji fokk mooy aji veye maanaam fokk maanaam wére ceeg sëxrëna mooy ko xam ne nelawul nit ña nelaw mun si dan may aji sadd di taalif di di lës yi ngir tagg ki nga xam ne kat taaba sell na bat an ca fa mu jógee ci cosaanam wa maxtama ak ni mu tëjee ki nga xam ne mooy faati mooy xaati mooy bat an wa maxtama ñi nga xam ne ba yàlla di tijji mbir ya moom la bi yàlla di kaste mbir ya moom la moo koy tàgg guddi yi yëpp usaajilu fii wurka lay lii wa jiirati niyaamun wa jaf ni kalmazani bi magrama hmm. mu ne usaajilu may lan lañ koy waxee ci olof euh, may lan lañ hmm? awante am na na koy olof tuddee de ma woyee ñu woy ma woy ñu woy ma wax ñu wax usa jëlu may awante am na olof baatu olof bu koy kii comme hmm? mun na nekk feelu waaw bi Moussa jële ci arab boo leen rob ci teen yi di euh, wëgg comme ni poli di def baag bi kii na kii bu xëccee kii xëccee kii xëccee gi moo koy Moussa jëla waaw am na nu koy olof di tuddee moom comme boo dëkk ba boo ma daan gis mag ñi di wëgg nag yi ci teen yi ñu yoru buum bi ki taxaw ni ki taxaw moy ñaar hmm? mbeyla ne mbeyla mbeyla mbeyla mbeyla noonu dal muy awante dal waaw waaw ki woy ki woy ki woy ki woy mu ne guddee nit ñang ngi nelaw maa ngi awante ak yi usa jilu may fi hi ci al alwurka eh, picc ya manam picc ya ngi woy buñu woyé ma woy buñu woyé ma woy Hmm? maanaam pi ya bu ñuy woy may woy layli u jaasuru usaajul fii wurka layli ci sama guddi gi wa jiirati fekk samay dëkkandoo ne amul ñu ngay nelaw wa jëf nii fekk sama mbaru bët kal bi mu ngi mel ne ay baak maxrama ngir cofeel mbaru bët yaa ngi mel ne baak baak yuy sotti ndox waaw ni ngay rootee di sotti di sotti di sotti mu ne bët samay mbaru bët noonu la mel di sotti rongoñ ba ma tooy xëpp ngir jooy ngir cofeel yeneen bi waaw mazanib jamu masnab mooy firi baag baag mooy looluy tibba ndox mi ci biir teen bi di ko génne unazimu durran durra lafsi fi zikri wasfihi wa batri durran munazima unazimu may nas durra lafsi ay peru baat yoo xam ne day niroog or fii zikri wasfihi ci tagg ay melokaanam wa ahsin yéemal bi wasfil batri ci melokaanu boobule weer durran mu nekk melokaan yu ñuy nas mu nekk durran ay peru or munazama yu ñu nas mu ne yooyu lee de baat yi may tëgg dafa mel ne peru or yu ñu peru or yu ñu nas muhammadun waaw sallallahu alayhi wa sallam miftaaxul futuhaat saydi wa xaatimu silki rusli xatman wa mukad xatman mukaddama mu ne muhammadun kooku may wax mooy muhammad de miftaaxul futuhaat ki ubbi ubbi ya moo ubbi lépp saydi muy sama sang wa xaatimu silki rusli moo kaste càkkuk yonente ya xatman ci kaste mukaddama mooy ki ñu jiital itam moo mujjee ñëw kaste càkku yonent bi len moo leen jiitu muqaddama moo leen jiitu moo leen jiitu de ci moom la ñu ñëwee bihi naala kullul anbiya manaalahum bihi zinatil hadaraat wa kir wa azima hmm. Hmm. mu ne mu ne bihi ci moom boobale yonent naa la la amee kulul anbiya mbooleem yonente ya ci moom la ñu amee manaa lahum seen may ya bii ci boobale yonente ziinat ci lañuy ñuy taaralee ci la ñuy taaralee xadaraat fii yàlla ya de bu la neexee nga firee ko xadaraat yi nga xam ne xadaray yonente ya waaw xadara yi yi ñu solo xadara yi anbiya yi xadara yi malaayika yi xadara yi waliyu yàlla yi gaa yu baax yooyu yëpp seen may seen karamaat seen mujisaat yëpp seen taariya yëpp ci pii yàlla ñu ngi ko amee ci moom yi seenatil xadaraat ci moom la ñu taaralee mboolem pays yàlla wa kir wegal boobu la yonente wa azima te nanga ko màggal wa kir wa azima rasulu min al mawla wa aadama lam yakun wa yabka rasulan daa iman wa muazzama léegi nu muy tàggee woy de mu ne rasulun yonente la boo xam ne minal mawla jóge wana sa yàlla nekk na yonente minal mawla ca yàlla wa aadamu te booba ki ñuy nan aadam sunu maam lam yëkkul nekkagul moom moom yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na yonente baada booba aadam ñëwagul te wa yëpp dina des rasulan day des nekk yonente de daa iman faw bu leen yaakaar na jóge woon jóge na fi de bàyyi dina yonente bi jóge fi génn na àdduna suul nañ ko taxul mu jóge fi de mooy hmm. yëpp kaa rasulan daa iman dina des di yonente daa iman faw nag wa muazzama te dina des ñu koy màggal ba faw ba tey ji ñu ngi koy màggal ñu gaa yi jéem nañu lu ne pour wàññi duñu wax ci yeneen yonente yi de yonente yàlla Muhammad rek la ñuy wax waaw di lu ne lu ne ñu jéem ko te nañu lu ñu jéem ci ay wax yu ñaaw lu mën a doon rek yonent bi day gën a màgg nit ñaa ngi koy gën a bëgg rek gis nga àdduna bi euh, weer wi ñu nekk di weeru màggal juddóomu àdduna bi yëpp ñu ngi koy màggal ñëpp ñëpp ñëpp ñeba ñoon sax naan buñ ko màggal gaa ngi koy màggal seen wet léegi waaw ca Makka ak Medina waaw yahut ya fa nekk naan bu ñu bu kenn màggal juddu yonente bi te ñu ngi màggal seen juddu seen sëriñ ak seen ñooñu waaw yàlla dafa nattu lislaam rek nga gis ay ñoo xam ne dañ lay tereel alxuraan di la tereel hadis ya di la waxal ay fekku di tar alxuraan yu neex di jiite kaaba di di di kii yore alalu alalu diin lislaam yëpp fekk ay yahut lañu yahut yu lay eh, taxawal di jiite jullee di tar alxuraan yu neex nekkuñu deretu juddu yahut de wante jikko yahut la ñu yoree ku bañ yonent bi rek yahut yi laal nañ la jikko yahut laal na la xamuñu ne dañoo bañ yonent bu bañ yonente yàlla bañ na la xamuñu li leen dal sax hmm, mu wa yabkaa rasulan daa iman muazzama dina des di yonente de muazzama nekk ku ñu màggal fa nachatuhu ak sosoom kanziyatul hakki wahdahu lizaaka ataana kaasiman wa mukassama waaw kanziya fa nashatuhu bindug boobu yonente sosoom fa ko yàlla sosee kanziyatul hakki mu ngi jógee ci màngook yàlla kanzi kanzu yàlla tey yàlla kanzu ndëxëñu yàlla fi mu ndëxëñee li mu gën a bëgg li mu gën a yaakaar foofu la yonent bi sosoo mooy Kanzul Haqqi wahdahu moom yàlla moom kenn li zaaka moo tax ataana mu ñëw ci ñun man muy séddatle mayu yàlla ba moo kasaman te moom la ñu séddaloo séddaloo de moom la sant séddale bii te mu ngi koy séddale fa aayu jamii li aayu muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa minhu ilayhi kullu sha'nin muammama fa aayu jami rusli maanaam kawtéefu mbooleem yonente ya du ko tàmbalee aadam ba ci eesa kawtéef yi ñu feeñal may yooyu yëpp mujisaat yi ñu feeñal mooy aay aay mu ne yooyu yëpp aayu muhammadin kawtéefu yonente bi la fa minhu ilayhi kullu sha'nin mu'azama fa minhu mu ngi jóge ci bi ilayhi jëm ci ñooña ilayhi jëm ci bépp yonente bu mu mën a doon da ko def mu euh, frat fo wante ci yonente ku nekk ci kenn ku ci nekk ñi yàlla may mu ngi jógee ci moom mun ilayhi kullu sha'ni bépp mbir mu am moment bu daj bu ak may bu daj mbindeef yëpp mu ngi jógee ci moom mu ne mawaahibu rabbil arsi taaha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatuhu mawaahibu rabbil arsi mayug borom aras mayug borom aras de taaha moo yonent bi mayu yàlla digg digg digg digg moo yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayeewul mbindeef yi leneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatuhu te mooy yërmande yàlla mooy jëmm yërmande yàlla aynu rahmati rabbaniya ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin waaw mu ne wa rahmatuhu mooy yërmande yàlla de moo xam ne yàlla def koo wàccee ngir yërëm mbindeef yëpp nag ci kaw nu bi yëpp yëpp yëpp kenn desul euh, kawnu bi leneen la dul yàlla ci kawnu bi nga bokk te leneen la dul yàlla yaa ngi ci kawnu bi kon nit ak jinne ki malaayika ki yem lu mu mën a doon lépp yonent la ci ñoom wa huwa moom boobal yonent bi arrahim mooy ay mooy yërëmaa ba nga amee yàlla moo jël turam jox ko yonent bi waaw raouf rahim yëpp yàlla jox na ko yonent bi waaw mu nga ci alxuraan fa akrima yéemal boobu lekk euh, euh, teddaanga salaamaaleykum